asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibi yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di jiite ci nuyu bi sëñ Sidil Muxtaar di ñaan yàlla yal na ko yàlla yàggal lool te may ku wér di siyaare sëñ Cheikh Jëmb Fall di ñaan di ko ñaan yàlla yal na ko yàlla yàggal te may ku su su ngeen déggee xasida yooyu yi di ngeen xam ne am da ngeen xam ne am na luy bëgg xew ana liy bëgg xew mooy lan moo di xam ngeen ne euh, sunu bokk yi nga xam ne yii ñoo nekk fii ci France te Cheikh Mouhamadou Mourtala mu baax ma joxoon leen digal maanaam ñu sakkuwoon kër Sëñ Tuubaa ba am ko mu daal leen fi gane si waxtu wu nekk yàlla dafa dogal nag waxtu wu di bëgg si waxtu woowee doomam ju baax ji nga xam ne maanaam moo fi nekk léegi di Sëriñ Maam Moor moo ko fi war a def si bu ko yàlla dogalee moo tax ñu toog ak suñu yii nga xam ne ñoo nekk sama wet ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dina jël kàddu leeral li ga xam ne moom lay bëgg wax bu soobee yàlla xam ngeen ne bis bii saa masan masaan aksi góor ak jigéen mag ak ndaw murit laayeen bàyyiwunu kenn kenn kenn ñëpp la woo na ko ñëpp teewe si ndax day bis boo xam ne bii xam ngeen ne maanaam Cheikh Mouhamadou Mourtala ma ko daan def ba yàlla yéegi ko yóbbu ko ca rafixul axlaa sun borom dogal sëñ Saliou Mbacké joxoon ndigal sëriñ Mamor mu wéyal liggéey boobu liggéey boobu nag mu di ko wéyal tem rafet lool ñu ko ñaan yàlla yal na ko fi te may ko wér mu war a doon kañ xanaa alxames lay doon di fukki fan ak ñett ci weeru octobre kon na ko ñëpp dégg noonu na ko ñëpp xam ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyi wunu góor bàyyi wunu jigéen bàyyi wunu mag bàyyi wunu ndaw léegi nag man du ma guddal di wéy dama daal di jox kàddu gi ki xam ne mooy jëwriñu liggéey bi muy alhaaji ibrahima Diop asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki lislaam bi bépp rawatina ci sunu bokki taalibe yi nu bokkal xaalimul Moustapha si ahmadul xadim ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp siyaar bu tedd te jiital ci siyaar bi sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke xalifatul haam fi yal na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko lool ba naar yi mu naaral maamam ju tedd ja te wootu woon ca waajuram ya yàlla jox ko kartan gu ma ko mën a àggalee te ànd ko ak nun ak bépp jullit bi jaay rasulullah di siyaare bu wérit nag sëñ Cheikh Jëmbu Fall xalifatul xam bu maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi jërëjëf sëñ Abdou Ndiaye li nga wax dëgg la danoo bis bii day bis bu nu ñor bis bu nu fonk muy bis bi nga xam ne sëriñ Maam Mor Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtala danoo war a gane si fii wax nga dat bi ñu ngi ci woo séentu ñëpp nag di ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bis bi lañu jàpp bis bi lañu fonk mooy sunu bisit nag Cheikh Mouhamadou Mourtala fi daal ñëw ba jóge fi yàlla def la ko neex ca moom ma nga firdaw si sëñ Maam Mor Mbàkke war a fee ñëw teewal ko fi kon nag képp koo xam ne xam nga xéewal yi nga xam ne moom la nu sëriñ Maam moor di indil fii ak koo mën a doon ak foo mën a nekk ñu ngi lay ñaan bu bis ba nga teew fi ñu ngi ci woo mboolem taalibe bu nekk Italie ñu ngi ci woo mboolem taalibe bu nekk Espagne ñu ngi ci woo mboolem taalibe bu nekk Portugal rawatina ci su sunu bokki taalibe yi nga xam ne ñu nga Sénégal bu nu sañal daal ñëpp ñëw fi bokk nun ngan gi nu bokk ci liggéeyal Sëriñ Tuuba te daje ci ngërëmul Sëriñ Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu ngeen mën a nekk noo ngi am di toog di toog ci jataay bi ngir euh, yëgal leen bis bu mag boobu ni ko mbokk yi waxee waaye man damay daal di wax rek ne buñ dee liggéeyal sëriñ bi alxuraan moo ci jiitu moo ci mujj moo tax kon incha allah bis boobu bu ñëwee ndonga yi nga xam ne ñooy jàng ci daara ji danañ feeñal seenum njàng ndax yàlla yeneen mbokk yi seen moroom yi nekk ci dëkk bi ñëpp sawar ci ca muy ndigal loo xam ne Cheikh Mamadou Mourtada da ko fonkoon lool euh, ba tax na ñu ngi ci woo mboolem euh, wayjur yi ñu teew ci bis boobu ngir neexal gone yi ngir it sëriñ bi ñaanal leen ba njàng mi gën a jëm kanam bu ko defee ku yàlla dogal mën loo yóbbu sa doom Sénégal mu jàng ca daara ja nga indi ko fii te xam ne lañuy def ca Sénégal ca daara yi murid yëpp noo ngi jëm fii kon noo ngi woon ñëpp di ñaan yàlla ñu yegg ci ci jàmm ak salaam salaamaaleykum. salaamaaleykum mbokki taalibe yi ni ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balaq di leen balaq ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali nganuk sëriñ Mamor gi ñu war a def ci Paris di ci soññ mbokki taalibe yëpp Papa Gaye di ngañay nansi gunda awa gunda awa kode awa kumba balla magat mulison balla saw kalerma feray cheikh bara diop sandi mbay diop bisaso fallu sey bisaso bara ndiaye biso sow tala faali diso sidi ndiaye diso amar sey simalo euh, moustapha seck ancien lamp ndiaye Faye Sifran Serigne Samba Ross Bordel Omar Jonn Wilpin Papa Thiam Paris ñii ñooy jëwriñ ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy jox liggéey bi ak Lamp Fall lu waay yóbbu boo leen ko joxee danañu ko indi ci liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu mbokki julli yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di yëgal. ngan gi xam ne moo lañu waaj a def incha allah ci Paris war a tombeek fukki fan ak ñett ci weeru octobre ñu ngi ciy woo bépp taalibe boo xam ne yaa ngi ci ngi France wala yaa ngi ci yaa ngi Belgique ak foo ma nekk rek te di taalibe ñu ngi la ci woo ci bés bi euh, ngan gi nag nañ ko fonk te yaatal ko ndaxte amuñ lu dul moom ab taalibe lépp loo xam ne daf ko baaxoo def waxtu ba ko daan def bu jotee war na koo def ak lum xat-xat noonu la ko sëñ Touba waxee kon nañ ci góorgóorlu te fonk ko te góorgóorlu ci bu baax ñu ngi ci woo ñëpp nag ñu ne ci dëkk bi ñu ci nekkut waa Allemagne waa Belgique fu waay nekk rek ñu ngi lay woo ci bis bi ah sañoon nag kenn bañ ko manqué jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Comme chaque année en cette période, le collectif des Mourides de France, sous la direction de son président, M. Ibrahim Diop, a une fois de plus le plaisir de porter à la connaissance de tous les musulmans, notamment les Mourides de France, l'organisation de, de, sa journée culturelle 2016. Le 13 octobre, une journée de récital de Coran et de déclamation de Chassaïd, avec la remise de prix à nos enfants, sera organisée à aulnay Nous invitons particulièrement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 nga xamante ni ren jii toll na ci vingtième édition te Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Serigne Touba daan ko teewee daan ko fekkee daan ko jiite. kon nag ñu ngi ciy soññ ñëpp ñëpp ñi nga xamante ni ay ndaw lañ rawatina ñu yëngu ci kër Serigne Touba gi ak fépp ndaw fu mu nekk tamit ci Île-de-France ak li ko wër. kon nag ñu ngi leen ci soññ bu baax a baax a baax journée bi incha allah le treize. lay doon journée culturel Cheikh Ahmadou Bamba bi fii ñu koy defee nga xamante ni danañ ko defee ca saal ba te dana dana dan mbooloo mu bari danañ ci ñëw kon ñu ngi ciy soññu ñëpp daayira xale yi Baay Faal yi ak daayira yëpp daal mën na ñoo tudd daayira yi bari na moom yaatu na waaye daal képp ko nga xamante ne ndaw nga rek ñu ngi la koy yëgal te di la ci soññ te boo gisee magi taalibe yi it depuis vingt ans wala lu ko ëpp sax ñu koy ànd ak Cheikh Mouhamadul Mourtada te tey jii lañ gën a dogu tey jii lañ ci gën a nangoo sonn tey jii lañ ci nangoo gën def seen alal kon nag ñun ñi leen féete ndaw war nañoo dollee jaajuwaat wala dollee góorgóorluwaat leneen li ma koy tëjee it mooy kenn ku ne xam na ni kër Sëñ Tuubaa gi fi mu ne nii ñu ngi koy yeesal yeesal bi egg na ci cent vingt cinq mille euros ñi ngi ciy dox mat na ñetti weer ak boobaak léegi dajale gun nañ ci lu mat trente mille euros cent vingt cinq mille euros nag lañ soxla kon nag képp ku gis annonce bii te fekk ni yëgoo woon yeesal kër gi na nga na la na nga xam ni ngan gi daanaka danañ boole bokk na ci programme bi fexe ba gën a gën a mobiliser waat ba képp ko nga xamante ni sa sas duggutoon mooy deux cent euros yi nga xamante ni bépp murit sas nañ ko ko ngir ngir ngir yeesalaat kër sëñ bi ñu ngi la ciy soññaat ngir booy ñëw ci ngan gi bu dee joxe goo ko nga nga joxe ko kon ñu ngi ci woo ñëpp rawatina ndaw ñi di leen ci di leen ci di leen ci soññ te ñu góorgóorlu ci te xam ni nanu jàpp na ko sunu sëriñ ba daan waxe sëriñ Abdul Xuddos ab taalibe day jàpp rek lépp liggéey bu buñ tuddal sëñ bi rek ni lii liggéey bi sëñ bi la mu jàpp ni la mu bëggoon ci sëñ bi yëpp ci bii liggéey la koy amee kon nag ñen nan ci wat te góorgóorlu góorgóorlu ci waat bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatu jërë ngeen jëf gannaaw ba ma sante yàlla di jullu ci Muhammad sallallahu ñoo ngi ñaanal sëñ Sidi Maxtaar yàlla na fi yàgg te wér sëñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg te wér sëñ Mamoor Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér bés bii ñuy woote nag mooy bés bañ daan woote rek di nganuk sëñ Mamoor Mbàkke ibnu Cheikh Ahmadou Moutada Mbàkke ñoo ngi ciy woo bépp jullit bépp taalu bi bu kenn manqué lépp lu waay jàppoon na ko bàyyi te ñëw ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi sant nañ yàlla di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa bañ ko fekkee waat ren te yàlla nañ ko fekkee waat at yu at yu bëree bëree bëri auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di woo ñun waa jamiya bi nga xamee ni ñoo nekkal fii ñoo nekk fii ci France ñoo ngi woo sunu mbokki jullit yëpp ak suñu mbokki taalibe yëpp ci ngan gi ñuy amal at bu jot euh, nganum sëñ Mamor ren nag mu ngi euh, tàmbali euh, le lundi 10 euh, octobre ñu ci jour boobu ñoo ngi ciy woo suñu mbokki jigéen ñëpp ñu tàmbali ñëw ci liggéey bi teeru suñu Mame Mor ñu tàmbali liggéey bi Euh, ñoo ngi leen di yëgal aussi ni leen ngan gi le jeudi 13 euh, octobre lay doon bis boobu nag bis bu am importance la si ñun ndax ñoo ngi ci woo mbokki julli bi yëpp mbokki taalibe yëpp euh, rawatina suñu mbokki soxna yi ñu ñëw ci maanaam journée culturelle bi nga xam ne moom la ñuy amal ci bis boobu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bis bi ñuy woote nag mooy bis bi ñu woote mooy nganu Serigne Mamour Mbacke ibnu Cheikh Moutada ren nag ñu ngi koy commencé le 10 ci la sëñ bi di yegg si waaye ci journée culturelle bi le 13 octobre la fii ci kër sëñ Touba gi fi la ñuy yendu ca salle ba la ñuy fanaan kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp di ci woo bépp jigéen rawatina daayira yi ñu ngi ciy woo daayira maam jaara bu bu Nantes di ci woo daayira maam jaara bu reen di ci woo daayira daayira fusti di ci woo daayira nooru daayira ni bu soxna Bali Muntaxa di ci woo daayira Tijaani ak laayeen yi ak xaadir yi di ci woo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi soxna yi li ngeen ko waxee noonu rek la man nag maa ngi woo waa daayira Maam Jaara di leen jiital ci liggéey bi ci waañ wi di ci teg waa daayira fusti te soxna Maam Fall jiite ko di ci woo sunu doom yi ñu nekkal ci waañ wi muy gone Baay Fall yi te Sëriñ Xaadim si la jiite ko maa ngi woo jigéen ñëpp liggéey bi nag ñu ngi koy commencé le 9 octobre fii ci kër sëñ Touba gi maa ngi woo soxna yëpp na ñëpp ñëw ci liggéey bi ñu jàpp ci nañ ci daan jàppee rawatina daayira na jaar ci liggéey bi ñuy faral di liggéey ci waañ wi maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn le 9 octobre bu soobee yàlla ci lay liggéey bi commencé fii ci kër sëñ Touba gi bala te rees ca bisum gan nga na ñëpp ñëw jërë ngeen jëf